Oumy la Sambène maa ngi lay nuyu di la ziar. di la delloo ziar. naka suba si ça va bien tey. alhamdulilah <laughs> Bonjour euh, à toute l'équipe et puis euh, bonjour à nos très chers On y va pour la météo. Donc euh, comme vous le constatez, un temps boo xam ne il est poussiéreux ndax ngelaw bi am ci partie boori géej gi principalement depuis démb nara jëm nag ba tey dans l'après-midi donc ngeen bàyyi xel ñi am sinusite tout de la poussière donc Euh, portez vos masques ngeen jéem a euh, fagaru tuuti température yi di tàmbali 17 degrés euh, à Saint-Louis 19 degrés du côté de Dakar 19 à Thiès ainsi Louga 20 degrés pour Diourbel et Fatick 22 à Kaolack 24 pour Sédhiou 24 à Kaffrine 26 degrés pour Matam et puis maximal bi complètement ci penku réew mi du côté de Tambacounda et Kédougou avec 28 degrés ñu dem après midi. Euh, pic de chaleur bi mu ngi maintenir ba tey il fait super chaud on est à 44 degrés canicule bi moom euh, je pense que c'est bien installé mi ngi fii depuis ça doit faire deux semaines deux trois semaines je vais dire 42 degrés à Tambacounda 43 à Kédougou 42 Kaffrine 41 pour Kolda et Sédhiou ainsi que Ziguinchor 42 à Kol à Kaolack et puis 42 pour Fatick axe Dakar euh, Saint-Louis bi passant par Thiès euh, euh yi weesu wuñu les 36 degrés euh, euh, la du côté de Saint-Louis pardon et puis 26 minimal bi ci après-midi bi pour pour Dakar complètement sowu réew mi asamaan si moom sur la quasi totalité du pays euh, jant bi dina fa fenk bu baax a baax hormis Dakar sant louis euh, complètement ci bët gànnaaru réew mi et puis Kédougou ci ce penku réew mi euh, am na quelque niir yoo xam ne ñu ngi fay défiler ci après-midi bi donc ñu dem si wàllum géej gi marée haute 7h01 lañ ko lañ ko nemmeeku woon dinañ ko nemmeekuwaat euh, juste avant timis ay 19h11 marée basse amoon na minuit 45 dina amaat aux alentours de midi 48 euh, heure bu baax bi pour dem nappi ji tey c'est entre 9h45 et puis. Euh, 11h45 activité des poissons très très c'est-à-dire que boo leen demee napp ji di ngeen am vous avez de fortes chances d'avoir du poisson bien sûr bu ñu fàtte gilet de sauvetage bi GPS bi ainsi que la boussole mooy kaaraange gi ba tey mhm. ça ne pas ñu xool jant bi moom fenk na ci 6h49 coucher du soleil 19h26 euh, minutes leen ko nar a am euh, si kanam tuuti toujours. aux alentours de Témis ñu daal di euh, mën a ndogu. Mm-hmm. ñaata ndogoo la dese loolu moom si gën a intéressé ah. <laughs> ñaata ndogoo la dese yaa ngi compté. bëriwul <laughs> on est sur la dernière ligne droite. allez je vous retrouve tout à l'heure si ñaareelu pàcc bi et puis je laisse ma place à Marcel Farba Marou. merci beaucoup Oumy à tout à l'heure incha allah euh, ci kanam tuuti tamit euh, de quoi est-il le nom fii la ñuy des ci Ndakaaru mais laata loolu léegi léegi c'est un jour un chiffre ak Marcel Farba Marou.